atelier menuiserie métallique fer forgé et inox waa kër Serigne Fallou Mbacké chez Kassé Mabou di len liggéeyal lepp lu jëm ci seen décoration intérieure extérieure nek quartier Medine, jàkkaarloog juuti bu bi Touba cosmétique chez Abdoulahat Silla di jaay ci lepp lo xam rek jëm na ci walum cosmétique parfum ay gamme yu bax pour jox len teint bu am éclat nek ci marché central Borombe rombee réseau bi ñu féetale à ta droite ñu and ak yeen ci seen émission 18 safar sur Widish TV 18 euh, safar 2024 euh, sur Widish TV mbokki auditeurs yi wala bokk euh, téléspectateurs yu Widish TV la télévision qui vous regarde ñu ngi leen di nuyooti bu baax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm sunu ñaari wayjur ñaanalati rek Serigne Mountakha Mbacké mbégum yoon wi yàlla yàggal ko fi mu ànd ak wér ci barke Seydina Muhammad mi ngi nuyooti ñëpp di ziar ñëpp di fas doore ak yéen nag émission bi nga xam ne rek. moom la ñuy topp ba keroog ñu yegg ci màggal geeg jàmm di ñaan yal na ñu ci yàlla yeggale ak jàmm ak tal ak fekke wér ak wérle mucc ak mucc lay di gërëm bu baax Moussa Diallo moo féete ci wàllu régie bi di gërëm également eh, ki nga xam ne rek moo di Serigne fàllu moo géré caméra yi di gërëm képp koo xam ne rek partenaire nga ko ci mel ni eh, Alioune Kassé borom eh, borom barab bu yànj boobee nga xam ne moo di atelier. Euh, menuiserie métallique fair forgé ak lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllum aluminium nekk foofee ca ci Médine jàkkaarloo ak euh, juuti bu bees bi ci lépp loo xam ne rek jëm na ci décoration intérieure extérieure dañu ci yëngu ci kanam tuuti incha allah dinañu ci ñëw waaye ñu ngi ànd ak Touba cosmétique ak sunu xarit ba Serigne Abdou Lahad Silla nekk foofee ca marché central moom it euh, sunu partenaire la di yëngu ci lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllum cosmétique dinañ ci ñëw mu gën a nag Euh, dañuy amaan mbégte contentement dalal ko Serigne moor nga xam ne moom euh, ci kër gi la bokk ak mu jot rek yàlla day dogal ñun ñooy ànd ci émission bi mu jig ñu lool moo ñuy ubbil waaye moo ñuy tëjal sëriñ moor ñu jox la kàddu gi nuyu la bu baax jox la sa waaye di la ziar di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi julli ci di sant yàlla suñu borom tabaaraka hmm. waaye di sant xaadimul Mustafa bi nga xamni moy suñu sunu tay ak ëlëk di sant suñu ñaari wajuru bu baaxa baax waye di nuyu bu baax señ Moussa Diallo mu baax mi ak. Khalil señ Khalil mu mm-hmm. baax mi nga xamni mom sak sakk at ñoo koy man ak moom émission bi muy jëmm ju baax. Mm-hmm. ñu leen di profito di leen ndokkee ci weeru magal wu tedd wi di ñaan. Mm-hmm. suñu borom yu ñu jàkk jàmm. ci daraaje borom tuba te lepp lu ci jamm yaa na ko suñu borom nangu. ndax ni ma koy wax rek bis bi mom bisub sant yalla la. ndax saa bu jub see rek xel yëpp day nekk Touba. kon nag ñoom ngeen di siyaare di siyaare mboolem ñi seetaan émission bi ñëpp di leen ñaamal di leen ñaanal jàmm ak salaam ci daraja borom Touba jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Mor yow it ñu ngi lay fay nuyoo macha allah dootuñu la présenté ci Sénégal dootuñu la présenté ci département de Mbour ndax tant yi xàmme nañu la bu baax a baax këru diine yi aussi xàmme nañu la macha allah ci mën ngay jàng te xam la ngay wax. yàlla may la ci li nga xam ne rek moo di euh, don bu yaatoo yaatu dañuy wax ne nag autorail bu jubee euh, sa gaar dafay corné euh, loo ñu mën a indil loo xam ne rek di nga ci mën a bégal ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à a Widish TV أعوذ a من a الرجيم a الله الرحمن الرحيم a الله على سيدنا محمد وسلم تسليما لي الغاد ممن بالذي رمت منا كتاب عزيز سبدوري لدن حنا لي الغاد ممن بالذي رمت منا كتاب العزيز سبد ريل دنان يباسرني الباخي ونادي وده بسكر حكيم جابه مرسل السنان ما ومود الفيد ما روبي أبا مقابل سيطان والليل سوى الجنة إلى ملا كليتي خطوة ميلادي وأقلامي وقد كان لمنا يقود لوم خاي بربي مهلمي إلى كالكلي فيدا يري لفظ والمحنى سوري وأهوامي خد الخيرتات لمن بتوالي في دم بها يخنى توذيل أقلامي إلى الله بدلا بلا خلوتي والله أبخا كما أخنا هديات ربي خادت الأجر وردا إلينا كما خطيب العمر والمحنى وعيث لو منا في عاجل بلوز كن ولي خاد ربي خير سيدا هني الحسنى أبا مالكي ما زال علي خبل رؤية وذرت له عبدا خديما لشي الأسنان بدا لي أن الله على رب خيره وأن الرسول الله باخل ولا وسنا كتبت وإني ساكر لن تنزكا وأني ما ما زاني الهب وإبانا jërëjëf yal nañu ko yàlla fayal Mouhamadou Bamba Xaadimul Mustafa borom tukki bu sari beeg sëricu bu dun bi mu ne woon maa ngi dem liggéey li sama borom ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ma ñëwee nag maa ngi ñaan képp koo xam ne rek euh, euh, euh, bokk nga ci umma islamique bokk nga ci umma Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ma ñëwee na nga ma santale sama borom léeg-léeg damay dégg mbër yi di wax ne jëm ci làmb di bàkku jóge fi di bàkk moo ko gën waaye moom mii gàcceel na kàddu yooye ndax ba muy dem xam na ni euh, dina dem waaye dina ñibbisi te buy ñibbisi dina indaale ndam euh, euh, mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla képp koo xam ne rek doomu aadama nga yaa ngi ciy jariñu nga yëg wala nga ñàkk yëg nga yëkkati xasida gu am solo mu doon lenn ci mbindum xaadimul Moustapha ndax mën nga ñëwal ci xasida googu lu muy wax ak fan la nekk waaw xasida moom li ma daan wax chaque jour rek laay wax. maanaam sëñ Tuubaa xasida yi mu tagg yëpp da cee tagg Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam kooku nga xamante ni moom rek la bëgg. sëñ Tuubaa bu fekkoon génn bëgg rek la am mooy yàlla suñu borom Seydina Muhammad ndax moom la ko yàlla tegtal. lan la nii yàlla wax ala Muhammadin. dafa xam ni kii mooy ki nga xamante ni mooy escalier yi gën a gaaw. moom mu ñëw jaar ci moom. Mhm. moo tax mu naa ko antal karimu àndal xadimu daral ubbiwu fi kasanaay. waaw xasida gii ma doon jàng muy liyan xaadami man bi la si romtu xool mën naa. Mhm. kitaabun asisun ba saaba durri la dun xanaa lépp sëñ Tuubaa da si tag yonente. macha allah waaye di ko ci wax maanaam ay ay ay ay ay ay loo xam ni maanaam kenn mënu koo wax ci mënoon koo wax ci ci ci ci ci làmmiñ. Mhm. waaye du ñuy du ñuy wax ci xol ndax moom bëggum bu mu bëgg Seydina Muhammad ba maanaam lu mu am rek jox na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu jur tudde na ko Seydina Muhammad macha allah loolu lépp rek ak bëgg Seydina Muhammad moo tax moo waral bis bii mu tàgg xasida yi di ci tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ngi ñaan yàlla ko suñu borom fay te dara ji xasida yi ndax xasida gi moom xasida yi moom sama benn waaye damaa mas wax ni ma xasida yi moom ñun murid yi lu ñu war mooy di ko jàngale di ko def addiyee sëñ Tuubaa ndax buñ buñ xamee dëgg-dëgg li ci sëñ Tuubaa def buñ dee jàng ci duutu àgg ndax ay jooy waaw incha allah ndax sëñ Tuubaa li mu ci wax dafa yéeme xas da gu nekk ñam ca tàgg ak ñam ca wax ak lam ca wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam macha allah ak li muy ak suñu borom di yàlla di ci di yàlla suñu borom. ñaan ba suñu ba suñu ba suñu borom may ko. ndax lu mu am dëkk ci xasida yi la ko amee. dëgg la kon sëñ Tuubaa moom léppam daal Seydina Muhammad la kon xasida yi moom diru nga naan xasida gii lu muy jariñ xasida gii mm-hmm. la muy jariñ mm-hmm. wenn bay doon boo ko jàppee mm-hmm. te tegu fa nga war a tegu mu wan la boppam mu wan la boppam Akaza mi ngi noonu wenn bayit boo ko ci jàppee mu woon la boppam Serigne Mor la ñu àndal eh, ci waajtaayu màggaluk 2024 eh, sur Widish TV ci seen émission 18 safar comme ni ñu ko àndeek moom at mu jot eh, junj naa ko sànq Cheikh Ahmadou Bamba Khadim dafa waxoon ne Eh, ma ngi dem le sama borom bu ma ñëwé képp kuy doomu adama nak ma santalé sama borom ma wax ni mbeur yi dañuy wax ni jëm ci lamb di bakku jóge fa di bakku ku gën mom nak ba muy dem la commencé wax ni ma ngi dem té ñëw bu ma dellu sé mu gën fee neex eh, ba tax mu bind xasida gu mag wax ni alamani rahmani fi safina loolu lan nga ñu ci mëna eh, ñamal ci lo xamné rek téléspectateur mëna ñu ko inda إبليس إذ ناديته بيا ولي أيس مني الله هند يا ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نبع لخير الله خبر في النار يا عباد سود كالدري نفعل خير الله في النكار كل أسر لجرم مكار هل مني رحمن في سبيلنا يا نبي خديم المدينة برا الله لتاكنا كري من كل جاء لبن إلى المناكر أصابني الله في كرم بسار خبل المبارز وحني خل بسار جرجف سرين مور يالنا يالا غنا ويرل بات بي تيوكولا غدو فنك وير yokkuñu ko ñun tamit wax dëgg yàlla foo àddoo fu nekk rek euh, dañuy kontaan ba dootuñu téye sunu bopp ndax euh, li ma la wax ci njalbeen gi la kër gi sa kër la te euh, at mu jot yàlla day dogal ni yaa ñuy ubbil mu doon suñu njiglaay macha allah moo tax bu ñu la gisee dañuy ànd ak mbégte kontantement yal na la yàlla fayal boppam yokku la ba nga yëg ko ci barki Seydina Mohamed ci barki Cheikh Ahmadou Bamba borom mbég mi bu ko defee nag dañuy wax ne Euh, peccum liir bu neexee ndey ja wala mag ñoo ñëw tey ca wagg ya dañu ànd ak ñoo xam ne am nañu kóllëre ak kóolute euh, ci Widish TV fas yéene ànd ak ñun euh, pendant avant et après lu màggal jox ñu seen i produits pour mu gën a fés ndax dañuy wax ne jaay laalu fa caro ji ñore ñu ci mel ni Alioune Kassé Kassé Mabo sunu xarit ba ma nga ca. sama xarit la sunu xarit. macha allah sama baax a ngi noonu soppeeku baax. tiraanga na la may defal ngir xasaay waxtaane na la yàlla xam na ko bëgg démb rek waxtaane na la jàngi alaaji misaan ngom bëgg jàmm ak xasida maa ko doon jàng maag si xaarim gi ak Cheikh Sadou Samb waaye moom nit ku baax la fu mu dajeeg man damay jox lay waxtaane la bi yaayam jëri jógee maaka maa ko doon jàng waxtaane na la nit ku baax waxtaane na la ay ca mi ngoog moom la ñu àndal ak eh, Abdou si Sylla ak waa Touba Cosmétique ni nuy def mooy dañu def benn pose boo xam ne rek dinañu ànd ak eh, Euh, sunuy partenaire won leen lañu lan la ñu def ak fan la ñu féete ñu ngi ñëwaat léegi léegi yeggale ak euh, sunu xarit bi euh, donte ne dañuy ubbi rek def ñam ngoo xam ne mënuñu ko fi téye ndaxte ñi ko soxla bari nañu te dañuy wax ne nag bi ku ñëpp soxla amuloo toogaay nañu dem seeti partenaires yi léegi léegi ñu ñëwaat dagg tënk bi nga xam ne rek moo dox sunu diggante ak moom joxe dig daje ëllëg ak jàmm incha allah. nee na maa Cheikh Fallou Cheikh Fallou ma way li wajhillaahi nee na maa Cheikh Fallou Cheikh Fallou laaye am di baay Cheikh Fadimatulaay nee na maa Cheikh Fallou ñu seet si nag moo di waa atelier euh, menuiserie métallique fer forgé ak inox waa kër sëriñ Fallou Euh, seet si sunu xarit Alioune Kassé Mabo am mbégte ak contentement bu rëy ci déplacement bi ngeen def ñëw seet si en tant que entreprise waa Kër Serigne Fallou fer forgé aluminium di yëngu ci wàllu métallique aluminium à tout ce qui est menuiserie métallique. Euh, ñun domaine bi ñu nekk nii euh, li ñu siy liggéey bëri na pratiquement dañuy def fer fer forgé ay ay grille de protection dañuy defar tamit inox. dañuy liggéey encore tamit ci meuble intérieur extérieur ñun daal tout ce qui est décoration intérieure extérieure ci fer ak inox ak aluminium dañ koy def defar ay chambre à coucher euh, menuiserie métallique dañ koy def ci aluminium dañ koy def ci inox ay lal ay canapé chaise table bureau lépp dañ koy defar mm. macha allah yooyu yëpp moom lu ci waaye soxla boo ñëwee fii mm. lépp dañ koy def mm. euh, ndax ci biir département de Mbour kese la seen clientèle yam wala génn génn non au niveau national très bien au niveau international suñuy produit mi ngi fay dem macha allah fépp partout dans le monde suñu liggéey mi ngi fay dem mm-hmm. France Italie Portugal fépp saal liggéey yu bari ba États-Unis suñu liggéey mi ngi fay dem macha alayka salaam salaatullahi alayka salaam dix-huit safar euh, sur Widish TV salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci waajtaayu màggal gi ñu am nag moo tax ñu déplacé wu seet ci partenaires yi te nag ki ñu seet si di sunu xarit di sunu wëlëré di Abdou Lahad Silla borom Touba Cosmetic di nuyu kilaan yi nga xamné ne ñoo ñu topp ci TikTok bi ak WhatsApp bi yëpp di wax né Touba Cosmetic ñoo ngi wàccaal Magal Touba. gëna ñoo ngi ay ay ay di efficace yu produit yo xamné tay lan la yo xamné euh dafa baax ci yaram po du am ben effet secondaire ñi nga xamné ne dañuy am xewet wala ñu am programme bëgg belli moom tam boo ñëwee fi fi la gën gaawé gaawee. dañuy ñoo ngi am poudre bu ñuy wax poudre weex taxaw. poudre weex taxaw moom moom ngeen gis ni ok poudre bi nga xamné mom bo amé xew. une semaine rek kenn lo xamné da ngay bël bël bu rafet. poudre bi mom nuñ koy jëfandikoo effet secondaire nuñ koy jëfandikoo. waaw poudre bi nag diw bu mëna doon même bu dul diw diw boo xam ne du xasal sax. macha allah soo ak moom da ngay wax macha allah da ngay jël da ngay boole ndox Evian rek mélangé su ak diw bi. Mhm. mais du dem ci kanam nak yaram nga dem. ci yaram mais mo amul benn effet secondaire da ngay xees xees boo xam naturel la mhm ñu bëgg bëggal seen jëkkër rek mhm. soo ñëwee fii da nga fekk ay secret de femme yu kenn mës a gis macha allah yu garaaw garaaw waaw mhm. boo ñu jëlee suuf rek dina la expliqué yéen gis gën gaam yi nekk noonu mhm. ngeen gis muus bi nga xam ne moom dem muus bi nga xam ne jigéen ñi xam nañ xam nañ ko libre fee ngi nii ak yeneen bagage yoo xam ne am na yu gën a garaaw yi daal ok kii dafa mel ni aussi saabu ah, waaw bii saabu la moom dem boo xam ne euh, day day ndax day dindi ay infection yu bari ci kanamu jigéen dama ko ci waaw euh, ku wax cosmétique wax parfum. waaw waaw kay boo fi ñëwee aussi dafa mel ni bàyyi ngeen xel lépp loo xam ne rek jëm na ci. parfum de classe bu yoo xam ne. Hmm. day res boo ko laalee day res bu baax. Hmm. parce que mboolem mboolem yi ñu bëgg. Hmm. am naa ko tubaab cosmétique ngay fekk nga ko bu neexee nii la def soo neexee mu def nii ñi nga xam ne dañuy màgg leen soo neexee tam ay gan mën naa def pomme ay fruits na ko def. ngeen gis ni moom fii rek nga koy fekk nag Touba cosmétique Lahat cosmétique waaw moyen cher nag moom li ci gën a yéeme mooy moom lu mën doon prix bi gën a moyen la ko jaayee

amuloo toogaay tey eh, ci tënk rek lan nga mën a tàggoo téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ci waajtaayu màggal gi ak lan nga ñu mën a bàyyee loo xam ne rek dinañu ko taxamtiku ba keroog ñuy gisantewaat yaa saayil ilam sababi taxsiimi yowmal xuróoji seyxina alxadiimi من داري تباب بك باري بإذن خالق البرايا الباري خرج يوم سبسا من الأسر لخدمة المختار في سعر سفر riba moo junni ki ñetti téeméer ak fukki ak ak yett lim bi la su ngeen ma dégloo tay ma dellu yeele ndax ñi new seen xelu dellu seete kuréera mbir day laaji ka xam lu mu xamul laaj leen mbiram ko leen amal lu kenn amul gumba yi jaajaan yaa ngi teegee ne wetam man ku xamul laajul ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na toppi waayam baalum dal fu xul falaayam na jéem a topp yàlla toppi ndigalam te jéem a daw saytaani xamee ndugalam te jéem a رجال الله تجيم راي راي كل رجال الله الخلق المختار والمختار لا دينكم تكم تختار قد جاءكم من الاله نور سرين توبا جاكو كروالا سندنور bamba jaara ngonu yàlla daara fil bari wal bari wanaa la daara xadantu fil bari la wax saytaana kap ka boo xayral wara awtaana noobal bu engagé ba xeex ja geeru baaw nuroowul ak siir keroog fa yor ba wa man yuhajjir fi sabilillahi mbot maa ko yokku foofa doona laay ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bamba yal demam ga akasa eh, eh, mi ngi noonu eh, jërëjëfalaat leen bu baax a baax door nañ ko ci jàmm fas yéene ci ànd ak yéen ba keroog ñu yegg ci màggal gi yàlla ñu yàlla may talak fekkee ba ñu yegg ci ni ñu ko dooree yàlla may ñu ñu yeggale kook alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Mor jërëjëfati la ñuy wax kàddu gu gàtt la goo xam ne euh, gàtt na lool waaye kenn du ko wax ku deful dara jërëjëfalaat bu baax a baax jërëfal jërëjëfal képp ko xam ne rek sa soppe nga jërëjëfal également sunu xarit yi nga xam ne rek ñoo ànd ak ñun À Kassé ak euh, ki nga xamné rek merci beaucoup à Moussa Diallo merci également à Serigne Fallou euh, on se donne rendez-vous demain Inch'Allah, ci euh, sur Waydis TV 18 safar 2024 merci beaucoup atelier menuiserie métallique fer forgé et inox waa Serigne Fallou chez Kassé Mabou di Liguel, les plus lu jëm décoration intérieure extérieure Nek quartier Médine jàkkaarloog juuti bu bees Touba cosmétique chez Abdullah Silla di tu le plus loo xam rek cosmétique parfum ay gamme pour jox leen am éclat Nek ca marché central Borombe réseau bi la à ta droite ñu ànd ak émission 18 safar sur Widish TV